man maa ngi tudd docteur Mame Diarra Bao je suis pharmacienne biologiste la fii laay liggéeyee IRESSEF ak professeur Mboub. ay jumtukaay yi ñu war a war a jëfandikoo bu ñuy transporter ay échantillon yoo xam ne dafa am ay doomu jàngoro yoo xamante ne mën naa indi loraange nit. bu ñu nee ñetti ñetti jumtukaay la war a doon yoo xam ne da nga koy tegle pour être pour mu wóor la ne. woo la ne échantillon bi ngay transporter bu bu tojee wala bu tuuroo du génn fii ba mën a lor kenn alors premier bi moom la ñuy wax échantillon bu moom la ñuy wax emballage bu njëkk bi par exemple boo waree transporter déret ci biir lay nekk lii mooy emballage bu njëkk bi bu koy transporter moom ngay dugal ci jumtukaay bi pour mu maintenir ko nga xamante ne bu tojee du génn fii bu tuuroo tam ci biir boîte bi lay des deuxième bi mooy boîte bi moom mooy ñaareelu jumtukaay bi nga def ko ci biir tëj ko après nga dugal ko ci ñetteelu jumtukaay bi bi nga xamante ne day permettre bu fekkee li ngay li ngay li ngay yóbbante dafa war a euh, dafa war a sedd da ngay congeler jumtukaay bi dugal ko ci boo ko tëjee bu ko defee bu laboratoire bu mu nar a jëm dina fa egsi te du tàng bu ko defee du yàq du du yàq échantillon bi bon loolu mooy li ñuy wax la règle de type emballage parce que échantillon booy transporter de lieu ci benn bërëb jëm ci beneen dafa war a respecter euh, règle triple emballage pour pour mu wóor la ne di nga protéger ki koy transporter di nga protéger ki koy ki koy recevoir di nga protéger tamit bis bu tojee environnement bi ba du ci disperser wu. li ci bees mooy avant dañ doon dañ doon am problème am ko ci dëkk bi on était obligé di ko commander extérieur Europe te dafa doon coûter extrêmement chair moo tax ñu bëri mënuñu woon am moyen laboratoire yi pour mën koo am da nga doon gis koo xamante ne day transporter ay échantillon ci mbuus te loolu yëpp wóorul ndax bu tojee oto bi nga koy transporter ka koy transporter ak ña fa nekk ñëpp danga nga leen di mettre en danger. léegi nag li ci bees mooy léegi produit yëpp fabricant local la on les trouve ici au Sénégal ak ak njëkk yoo xamante ne. laboratoire a accès ba mën règles le trip emballage se présente comme tel le kit de trip emballage est nécessaire pour faire le transport sécurisé des échantillons infectieux alors on a le trip emballage qui se présente comme tel l'emballage primaire qui est le contenant de l'échantillon infectieux on l'appelle emballage primaire qui est inséré dans un calage qui se présente comme tel qui prend des tubes permet de les maintenir, de les fixer, que ça ne bouge pas durant tout le transport pour éviter les risques de, de cassure. L'emballage secondaire, qui est le contenant du calage, qu'on ferme, comme ça. Cet emballage secondaire aussi est doté d'un pictogramme qu'on appelle le pictogramme biohazard qui montre que ce conteneur-là contient une substance infectieuse pour toute personne qui aurait à le manipuler, de prendre toutes les mesures nécessaires. Ce type, cet emballage secondaire est mis dans l'emballage tertiaire ici, qui est constitué par le sac isotherme, qui est doté d'un accumulateur de froid qu'on peut congeler quand on doit transporter des échantillons qui doivent respecter la chaîne de froid. Une fois qu'on a fait son trip emballage, les demandes d'analyse peuvent être insérées dans ces sacoches on ferme et puis on a son trip emballage et on transporte de façon sécurisée les échantillons.